asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay fii ci seen Argentine Argentine Touba TV mu mel ne bi ñuy wàcc màggal nag teewoon nañ fi am laaj yoo xam ne moom lañ jotoonu jàllale ci 18 safar bi am na mbokk yoo xam ne jot nañ cee tontu waaye ñenn ñi nekkuñu fi. Euh, ki fi teew tey kon mooy Serigne Fallou Gaye moo ko tontu nekk fii ci Touba Argentine Buenos Aires moo ngi nii teew mu mel ne kon moom lañ invité tey pour jox ko kàddoom euh, dañ koy jox mu nuyoo ak mbokki taalibe yi ñu doog indi laaj yi nga xamante ne bii moom lañ laajoon leeral ko bismillah Sëñ Fallou Gaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ñi seeraan Touba TV Argentine ñu ngi leen siyaar bu baax a baax a baax man la sëñ Fallou Gueye maa ngi dëkk de gox bu naan Diourbel Sénégal ci Sénégal euh, maa ngi ñëw fii nekk maa ngi nekk Morone doon di yëngu ci kuréel Touba moroon ginnaaw bi di yëngu ci kuréel gu naan kuréel ahlu minan di waa ko sëñ Bachir yi fi nekk ñu ngi leen siyaar di jël siyaar bi di ko jox sëñ Moutala di leen siyaar bu baax a baax a baax a baax euh, ginnaaw bi nag bi nga xam ne doon nañ laaj doon nañ waaj màggal gi am na ay bataaxal yuñ fi tegoon kun ku ko tontu am ay neexal ci laa tontu woon bu ko defee eh, ñu invité woon ñu fii tey ci émission bi ñu war fee ñëw ngir eh, jël suñ neexal yooyu bu ko defee kon dañuy jël kàddu yi jébal ko soxna si rek mu jëm ci liggéey boobu incha allah. jërëjëf Serigne Fallou Gueye nuyoo bi matal na lépp xam naa ñoo ngi ñëw si kanam ci kuréel googu nga wax ne ci wàllum xasida ngay yëngu bu ñu leeralee laaj yi ba pare dinañ ñëw ci yow nga yëkkatil ñu fi ay bayati xasida ndax ku ne xam na ne jàngkatu kuréel moom xasida moo nuy dundal rawatina ñun murit mu mel na laaj yin fi jotoon na teg laaj bi ci njëkkoon mooy eh, Serigne Touba sunu sang xaadimal Moustapha fan la njëkk a wootee màggalu Touba mu ngi ko wootee wootee Jurbel Jurbel la ko wootee woon ca kër gu mag foofu la ko wootee woon ginnaaw bi nga xam ne làqu na Serigne Modou Moustapha continué di ko fa amal ca buqatal mu baaraka bi nga xamee ne Serigne fàllu mbàkke toog na ci xilaafa gi la ne nit boo koy sant da koy fekk ca dëkk ba mu nekk nga di ko fa sant kon nañ leen ko fekk Touba di ko fa sant kon loolu sikkuwul moom la Serigne fàllu Gaye tontu sëñ fàllu moo ko jógee moo ko jëlee bu xatal mu baaraka indi ko biir Touba Mbacké ñu di ko fa wootee euh, beneen bi ci toppoon mooy kan moo gën a gëm Serigne Touba mooy soxna Faati Isa way juru maam Thierno Birahima ndamal lislaam euh, ndax bi nga xamante ne bii li ñëpp dëggal ka ko gëmut mooy soxna Faati Isa tubaab bi bi mu jëlee Serigne Touba yóbbu ko ba mu am juróomi at juróomi at kenn gisut sëñ ndax booba leetar amul ay téléphone amul te gis ko yóbbante bataaxal yombut boobu sëñ Touba ngi ci maay yombaak ay wiir wiir fu ko toxal tey boo léegi ñu def ko ci la tubaab bi bind ab bataaxal ñëw jox ko maam Mor Jaara mi nga xam ne mooy magi Serigne Touba ñoo bokk wenn way jur wu góor ak wu jigéen bi mu ko joxee ñu ne ko ku ngeen say Serigne Touba sa rakk ja faat nañu ko loolu lan def ci bataaxal bi bopp maam Thierno mu ngi woon Daaru mar naan Daaru mar naan gi ci booy dugg Touba fi la maam Thierno nekkoon ak soxna Faati Isa bi nga xamee ne loolu xew na ñenn ci magi murit yi ñii teg nañ seen jë daara yi commencé ñii di dugg ak génn ñu ci maam Mor Jaara magi mag borom saam di ñëw di jaabante diggante Mbacke xewar ak Daaru mar Marnaan ñuy jaabantey dem ak a ñëw soxna Faati Isa moo woolu maam Thierno ne ko maam Thierno damaa gis boobu ba léegi ngeen di dugg ak a génn fan yépp lan ana lan moo xew mu ne ko li xew de neexut ba neexut waaye sa xarit ba sa doom ja la tubaab bi ne moo fi bàyyeekoo te neexul a weddi ndax ku nu mës a yóbbu ku ne dellu si woo te boobaak léegi kenn dégg kenn gisu ko mu ne ko Thierno Ibrahima Faati mu ne ko defoon naa ne sax romb nga foofu ci sa mag ja sa mag ja lu mu mës a wax dina ko def kon sa mag ja làquwut ndax am na tawet tawat ju metti ji ko daloon booba ci la doon bind mat matlabul sifaa yi nga xam ne matlabul sifaa yi ñii nee nañ soxna aw bu sa moo ko bind ñii nee nañ keneen moo ko bind ndax tawet ju metti moo daloon Serigne Touba ba muntu na bind da doon wax ñii bind ci la ne woo soxna Faati Isa mu ne ko toggal ma laax mu toggal ko laax boo xam ne dañ koo ñuluge ak ndoxum jar bi mu ko toggee ba noppi la ko jox ku tedd ki mu xéwlu ci bi mu ko ci la amuk tan ci la woo soxna Faati Isa ne ko ana soxna Fatou Issa loo bëgg mu fàggul la ko mu ne ko damaa ragal ci biir bàmmeel mu ne ko xanaa su ma la nangulee sama bopp yoor la ci biir bàmmeel di nga ca am rafet njortu mu ne ko waaw su boobaa sama xel dina dal mu ne ko moo ma waxoon loolu te man maa ngi nii di dund faatoogu ma kon nan xam ne seexul xaddim mu ngi ci kaw suuf te soo ko saakoo gis di nga ko gis boo bindee lettre rek jox ko ko dina la tontu mag ña ko fekkee nee nan bi sëñ Tuuba bi maam Cerno bindee bataaxal bi suul ko ci tànku lalu soxna Faati Isa dégg nañ sëriñ Tuuba muy wax ak maam Cerno ci sensé kon kooka mooy jigéen ji nga xamante ne bi moo njëkk a gën gëm sëriñ Tuuba ndax moo njëkk wax maam Cerno ne ko toppal sa doomi baay ji waaye it la ñëpp gëm moom mu ko gëmut moo gën a gëm sëriñ Tuuba ndax moo gëm ne Serigne Touba mu ngi dund te moo ko yor ci biir bàmmeel bi Serigne Touba ñëwee yóbbu nañ ko njaareem ba yóbbu ko Murtani ba jëlewaat ko fa da ko yóbbu ca yéen jolof bin ko yóbboo ci yéen jolof ci la yónnee lu ne woolal wool leen ma soxna Faati Isa biñ ñee soxna Faati Isa ku tedd ki moo lay woo sa xarit ba la ne ah la waxoon rek la bëgg a def de damay faatu ji kon kon mooy kooku mooy soxna Faati Isa loolu la Serigne Touba di wax pendal mu gën tubéy la sëñ Moussa Ka di wax naan jigéen ju am ngërëmul yàlla pendal mu gën tubéy lay doon fa diwaan lu mu wardu wardu am na ridwaan kon kooku mooy soxna Faat Isa way juru maam Cerno mais am na ñoo xam ne ñu tontu nañ ko nag mais ñenn ñi dañu fee nekkut ñenn ñaa ngi étali ñenn ñi dañoo xaw a sori ba seeni cadeau dugalaat nañ ko ci bi ci topp mooy soxna Faati Ja rakk la ci Serigne Touba doomi soxna jaaral ak maam Mor Anta Sali moom lañ doon laaj fan la bara ba mu nekk ci jamono jii soxna Faati ak tu tànk si la làqu ndax Maam Mor Anta da daan amal ay xare bi nga xamante ne bii mu ngi def ab xare ci poroxaan mooy xare bi mujjee bokk na ci yi mujjee def boobu la fekk mu doon tu tànk de toll ci raam ci saayir ndax ñoom moom ku ci ñëw da ngay mat ba noppi mais nin ko mën a waxee ñun ci suñu dégg tu tànk la ci saayir boobu la naar yi ñëw indi bind ab bind di ko firiloo sëñ Mor Anta ndax dafa doonoon borom xam-xam bu mag ba Lat Joor daan na ko atteloo ñu bari daan nañ ñëw di ko fekk si di ko laaj ay bind lu xamut dañ ko ko daan laaj mag ñi jàng di ko wax masalan bin ñëwee di ko laaj si lan fekk soxna jaara ni mu jikkowoo ak tout tànkam yi nin jikkowoo ñu xam ne kon la xaddis ba waxoon ñëw na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon xaddis ba ne ku fekkee taarix ba topp sëriñ Tuubaa du dem naari ngir maam jaaratullaay ñu daan ne ah kon de kii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax morom ji ne ko kon ñun nan la ñuy def ba am ci njabootam gii ndax ñii leer nañu ne ëllëg ñooy mujje lislaam ñooy mujje diine xeetu barkeel la ñuy doon bi mu waxee loolu morom ji ne ko nan xaar ba ñoom ñu dem ci xare ba ñu sàcc tànk bi ndax jigéen la su demee bu màggee buñ ko joxee mu am borom kër ci suñ biir ci ñun boobaa meññet mi ak deret ji dina ñëw ci ñun ci la sàcc soxna Faati Ja takk ko ci ab saako di dem ak moom bi ñuy dem nag ba génn Mbàkke Kajo fee doon defee xare bi Poroxaan ba dem ba daaru bi ñuy dem ba génn bi demee ba takk ko ci saako bi bi ñu demee ba Kébémer Kébémer ca Rompoy ba ñu ne nan ko tekki xool ko ndax yàgg na ci biir saako bi bi koy tekki di ko xool lan fekk sunu borom moom ko mu ñibbi aljana lépp ci dogalu suñu borom ci lañ ko jël denc ko foofa nga xam ne fara rompay Kébémer ba ne soo demee boo laajee mag ña dëkk Kébémer wala ña fa yàgg dinañ la ko wax foofa lan denc soxna Faty Dia loolu mooy deuxième question bi rakk la Serigne Touba doom yi soxna jaara la waaye fi ngay xam ne soxna jaara moo mën a muñ musu koo jàmbat musu koo jooytu ndax bëggu koo jàmbat sangam ba di ci am lu ko naqari te du ko mën a jëli loolu moo di muñ koy kon boobu kenn tontuwu ko mais dañ koy leeralal mbokk yi ba mu leer ndax boobu moom kenn jotu ko woon a tontu dajeeg nit ñi lu bari ñu di ma laaj lan fan la nekk ak xamuñu ko woon loolu moo waral leeral gi li may wax tamit samay at fekkewu ko waaye maa ngi ko jëlee ci sëtam bu baax bu sellal muy sëñ Mamour xam sa diine ci moom laa ko jëlee euh, te sëñ Mamour xam sa diine doomi sëtub sëñ Mor euh, Mamour Jaara la ndax sëñ Mamour xam sa diine sëñ Mor Doj la ñuy wax moo jur baayam sëñ Mor Doj moo jur moo moo mooy doomi Mamour Jaara moo jur baayam kon moom lim ci wax lépp lu wér la te lu ma si wax li ci ëpp ci moom laa ko toxale ñoo ngi koy siyaar di ko ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram rawatina nag at mu jot mu génne ab taalif ci maamam ji di soxna jaaratullahi kon sëñ Fallou Gaye ñu jox la rek nga yëkkati ay bëyit ñu tàbbi ci yeneen question yi ak neexal bi la war a jox. ayazamil ni laawil dajeewale iblisa yes naa day doxo biyaawale ayazamil ni laawil dajeewale إبليس ناديته يا ولي نفع لغير الله قبل في الدري بيال بار للوسود قدري هذه سنجوبه macha allah macha allah Serigne Fallou njàng mi am na solo lool bayit yi nga yëkkati am na solo lool kon dañuy tegaat yeneen question yi doog ko yëkkati neexal bi jox ko sëñ Fallou Gaye mi nga xam ne moo tontu question bi njëkkoon bi ñuy laaj tey jii mooy soxna may muunatu borom laylatul xadar mi nga xam ne moom lañu ma dippee kan la bokkal way jur wu jigéen ndax am na ku mu bokkal way jur wu jigéen kan la ko bokkal ak kan lañu ko tuddee Eh, bi ci topp mooy eh, sunu maam soxna jaaratullaahi am na rakk ju jigéen rakk ju jigéen ji ñuy jamono ji ñuy wax ak yéen fan la nekk ndax ñett lanu mook sëñ bu soobee ak rakkam ju jigéen jooju jamono ji ñuy wax ak yooyu rakkam ju jigéen jooju fan la ne wala kenn ci ak njabootam fan la nekk ci jamono ji ñuy wax ak yéen loolu mooy ñaareeli laaj yi nga xam ne moom lañ fi tegaat kon bismillah sëñ Fallou waa Touba Argentine TV ñoo lay jox kàddu bi di la ndokkeel nag si laaj bi nga xam ne moom nga tontu di rafetlu sa xam-xam di la ñaan yàlla guddal sa fan wéral say cër barkeel xam-xam bi lool nag ndax li rek lan bëgg di gëstu ndax sama maas gi xamul di ci jàngate waaw asalaamaaleykum xanaa kay di am ay di am mbégte bu baax a baax a baax ak kontaante ci li nga xamante ni tontu nañ ko digg yàlla du sunub xam-xam sax ndax ñu néew ab xam-xam lañ waaye lépp ci ndimbalu Sëñ Tuubaa rek lañ ko tontoo kon ñi ngi sant tubaa Touba Argentine TV bu baax a baax a baax a baax leen ñaanal mboolem fee fépp foo xamante ni euh, télé egg na fa ci àdduna bi rek ñu ngi leen di ñaanal ngeen àgg fu fu maanam fu kawe foofu fu kawe lool lool lool lépp loo xamante ni nit mi ngi am ci média rek yal nañu suñ Touba te it jomm leen ndax euh, ni ngeen tudd seen yi muy tubaa Argentine TV ndax Touba mooy texe. kon na ngeen xam ni lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko ci rek di ngeen ko ci fas xam ne suñ bi dina leen defal incha maa ngi bëgg bu baax baax a baax ci teew gi fii ak euh, maanaam gatanu gi ngeen ñu gatanu ak yaatu geeg tawféex geeg lépp ñu ngi ciy sant bu baax baax wax dëgg yàlla kontaan nan bu baax a baax a baax a baax yàlla na suñu boole defal tawféex tasir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ok jërëjëf sëñ Fallou Gueye yow tamit ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci coono yi nga jànkoonteel ba si fii ndax diggante Morone ak fii xaw naa sore te danga nga bàyyi sa yitte yépp ñu ngir ñëw teew ci plateau bi. Euh, laaj yi bi ci njëkk mooy soxna may mu Maymunatu borom laylatul xadr kan la bokkal jur wu jigéen ak kan lañu ko duppee kan lañ ko tuddee maanaam ak kan la bokkal jur wu jigéen ndax way wayjuram wu góor moom ku ne xam na ne eh, sunu sang xaadimal Moustapha mooy juróom wu góor bari na am na ñu mu ko bokkal. waaw deuxième laaj bi mooy eh, soxna Jaaratulaay am na rakk ju jigéen jamono jii ñuy wax ak yéen fan la nekk wala kenn ci ak njabootam fan la ñu nekk eh, jamono jii ñuy wax ak yéen loolu mooy deuxième laaj bi di siyaar mbokk yépp koo xamante ne bii nag soxla ngaa tontu mën ngaa commentaire ci suufu vidéo bi ku ko seetaan ku ne rek mën nga dugal sa commentaire ci suuf incha allahu rabbi ku ko gañe dina la indi fii ci plateau bi eh, jox la sa kado eh, di jaajëfal mbokk yi nga xam ne nag ñoo ñuy bàyyi xel di ñu seetaan ci waxtu wi kenn ku nekk ñoo ngi leen di ziar sa tur ak sa sant mbokki dëkkandoo yeeg ñun bokkal fi ñuy liggéey yeeg ñëpp ak waa Sénégal ñëpp ñu ngi leen ziar leen bàyyi xel di leen jox di daje eh, ci beneen émission. boo xamante ne bii tontu nga ko rek ñu ngi toog di la xaar pour dalal la fii ci plateau bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah